ay gàllaaj ak yooyu te évidemment président Ousmane Sonko ñu bëri doon nañ ma woo sax si ay waa Pastef ak yooyu ñu nekk bitim réew naan ma noo gis nañ sëriñ bi si internet dañu bëggoon defal xam nga ñoom dañu gëm Ousmane Sonko lu leen nit wax rek dañ koy gëm. Hmm. patriote yi li leen nax ci affaire sëriñ ci mbirum Ousmane Sonko loolu alal ju bëree bëri am na ñoo xam dañ ci dóoru dóor ba reg par ñoom boo leen ni génnal saraxu nax ngir Ousmane Sonko dañ koy def boo leen génnal saraxu bëy dañ koy def mais ñoom. mystique bi ñu doy bi ñu doon def c'était ci bon sens ci côté bu baax lañ ko doon defee hmm. maanaam pour seen leader am jàmm pour seen leader génn ci kaso bi ndax gëm bu ñu ko gëm bu ko gëm ñoom bi ñu demee ba xam ne waa kër Ousmane Sonko ñoom dañ ko xoole comme genre ibaadu entre guillemets ak Bassirou Diomaye Faye ñu ne ñii gëmuñu sëriñ gëmuñu gàllaaj donc nañ leen nañ leen leen jugal te évidemment Ousmane Sonko gëmul yooyu Ousmane Sonko du takk gàllaaj yooyu gëmu ko moom dafa mës di wakirlu si boromam même depuis la prison ay nit dañ doon bëgg a dem di ko yóbbul ay galaaj pour mu sangu def nii mais moom gëmul lool te li may wax ni hmm. seetal Ousmane Sonko dina seetaan vidéo bi du mës a li may wax te loolu awma ci benn doute gëmul lool moom mbiram yëpp si boo ko xoolee tàmbaleem ba fii mësul génne cadre yàlla dem na ba yegg si ne bis bu ma faloo sant leen bis bu ma falulee it ngeen xam ne yàlla suñu borom te loolu lu constant la ci biir communication am. Mm. maanaam chaque jour da doon dellowaat cër bi suñu borom. gis nga féticheur boobu ñu indi. loolu luñ ko sox hôtel. ndax xam nañ ne enquête sax mën na jug ñuy xool ban otel la nekkoon gis nga fan résidence. Mm. fa lañ ko loger kër ut ay alkaati yoo xam ne ñoo ko doon garder féticheur boobu maamam bokkoon na ci ñi dàq fétiche ci ci Inde. bu may ñëwaatee dinaa joxe turam gën a joxe ay détails yoo xam ne nit ñi dinañ xam ne ñun at yi ñu am mënuñu koor di yàq suñu koor si ndëgalaw di wax loo xam ne comme ni ko xale yi di bëgg ba lañ si bëgg wala nangam ñu soxleetuñu. ban moment loolu non soxleetuñ loolu. ban moment la ñëw ci mi ngi ñëw ci réew mi le 27 diggante le 27 ak vingt 28 bi si la si la nekk ci réew mi. maanaam nag liggéey waaw mars. maanaam liggéey bi nag avant président Bassirou Diomaye Faye di def passation de service mm. moom jeexal na ko ci pale bi mu nekk nag liggéey bu bon a bon ci wàllu magie ak wàllu mystique liggéey boobu bokk na ci liggéey yi gën a bon yi nga xam ne maanaam bu la jàppee jàpp la mooy problème mais bu la xësee ba jàpp ah kooku bu say mbokk jugul sa bakken mën na fa des wala la nga yoroon mën nga ko ñàkk parce que ñoom nguur gi daf leen jaral lu nekk lu nekk nguur gi da leen ko jaral ñoom tey da ngay xool même président Ousmane sonk bi ñu koy yóbbu tribunal euh, ñoom dañ leen waxoon ne indi leen karawam ak weewam mais mënuñu am weewam mais jotoon nañ am karawu Ousmane sonk sous hmm. l'ombre de conduite réussiroon nañu am benn karaw ci karawu Ousmane sonk ci Moussa mi hmm. mais weewam la ñu amul woon loolu la leen féticheur boobu loolu la leen laajoon donc kon moom euh, ñoom ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ak président Macky Sall nguur googu àdduna ñëpp xam nañ ne ñoom mystique dañ koy yàgg. gëm di ko jëfe di ko doxe Sidi Lamine Niass yàlla na ko yàlla yërëm te yéexe ñu ko Sidi Lamine Niass moo ñu njëkk xippi suñuy bët ci doxalinu Macky la wax ñu loge maçonnique yi wax ñu wàllu mystique bi wax ñu yeneen mais boobu nit ñi dañ doon xaaj xeer euh, euh, Sidi Lamine siidi lamin Cheikhou Charifu xale bi ñëwoon Sénégal ne wàllewu la nangam nangam mm. ñu yóbbu ko esat ndax askanu lu ma Sidi Lamine moo taxaw ne leen xale bi escroc la kii xamul alxuraan mais lan lañ wax Sidi Lamine dañ ne Sidi Lamine nitu fitna la Sidi Lamine baaxul dafa iñaan liñ ko boolewul si prison bi si programme bi mais Sidi Lamine ñen temps bi jox na ko dëgg man nag samay wax. Hmm. day day day guddee rek mais lu nit di teg bëtam la man li taxoon ma daw dem Mali maa ngi sant yàlla la ma waxoon Pa Ousmane. Hmm. seedeel yàlla jox na ma dëgg wala joxuma dëgg. ah dama ne woon Ousmane Sonko Macky Sall yónni na ay nit. pour ñu waxtaan. Hmm. mu dàq leen sa xaj. ñu ne loolu du dëgg. ah mbir yi fu mu mujj mujjewul ci waxtaan bu metti boo xam ne ki ka sàkku mooy kan. Hmm. mooy Macky Sall ba ma fi toogee ne rey nañu ay nag yu ñuul kuk géeju tëngëj ab nit caméra ko wan ma ko. ba ma ko hmm. toogee wax fii. am na ñu bëri ñu si sikk sax kàddu yooyu ku ko dëggal procureur Alioune Badara ndaw dëggal na ko. léegi ki ko doon alerte lan la ci jublu woon bi mu la koy wax. noo xaaral rek yemagul foofu sax. Hmm. maanaam lim ci jublu. mooy ki nga xam ne moo di son excellence Bassirou Diomaye Faye mu jug ak ay mbokkam. bañ a financé pale waa ji nee na ma. Hmm. bu mu financé bu àdduna neex ba mu guddee si pale ba. fanaanu ko mu ne ma boo fa finaanee rek yàqu. fanaanu ko fa waa ji nag moom ci nguuru Macky Sall la nekkoon. ah waa mais gëmul woon système bi xam nga liñ ne Macky Sall xam naa ñu bëri ñu àndoon ak moom te gëmuñu ko loolu ci li koy yokk ray sel man xam naa ñu bëri ci nguuram xam nga man man xam naa nguuru Macky Sall eh. bu baax a baax a baax am na ñu bëri ñu ma xam ñu doon xoola ñu doon xalamal Macky Sall doon nekk moom suba ak ngoon. boo doon wër ay noonam dëgg jàppal ñooñu noonu junju doy na borom xel ci wàllu sécurité am tamit. Hmm. waa ji dem na ba yegg si ne ma. taplo yi nekk palais tableau yëpp nañ ko saytu ak fauteuil yi waa ji daf ma junj nee na ma tableau yi nekk palais ak fauteuil yooyu yëpp nañ ko junju ah ma ne ko lu tax mu ne ma gars yi bàyyi nañ nguur gi mais am nañu ay espion si pale bi. ba pare am na ñu système yu efficace yu ñu fa bàyyi pour mën a surveiller lépp loo xam ne mi ngi xew si mi ngi xew si palais hmm. te waa ji mu wax loolu nit ku fiable la ku fiable ku wóor koo xam ne sous l'ombre de ko doute du mu am benn doute ci ay ci ay information am hmm. moo tax foofu noonu maa ngi suggérer son excellence Bassirou Diomaye Faye ne maanaam wàllu sécurité am hmm. na ko bàyyee xel bu baax a baax a baax même bu ci lënkaloo ak waa réewu Russie ñu jàppale ko ci. Russie waaw Russie ñu jàppale ko Russie dafa xew ñu jàppale ko ci bu baax a baax ci wàllu sécurité wàllu kaaraangeem a ah, loolu de. Hmm. lu ma koy xelal la. lu mu bëgg mu dégg ko la lu mu dégg am na ñu ñu bëri ay ay ay kuréel yu mag yu nekk si àdduna ñoo xam ne dañ leen tàggat ci wàllu sécurité kaaraange ak yooyu da leen di fay xaalis ay privé lañ. pour ñu inspecter biir palais pour ñu inspecter nañ leen nañ leen fay ay koppar ñu ñëw inspecter indi ay détecteur xool micro yañ fa bàyyi enregistreur yañ fa bàyyi li ma la wax nii. Hmm. nañ ko enregistré bu baax ñu jento ko man samay wax day guddee rek mais lu nit di gis la nañ dem nag ba si kanam di nga fi dégg scandale yoo xam ne mosoo ko dégg Sénégal bi nga dee Pa Ousmane ba jon yàlla ba jon yàlla te donc kooku alerte la te wax ji jubluwuñu ci leen. Hmm. mais ñun ay lanceur d'alerte lañ yoo xam ne bu ñu déggee dara nous nous sentons investis de devoir citoyen de veille et d'alerte pour message yi moom mu dégg ko. après ñun ñu delluwaat suñuy yëf. Hmm. comme li Cheikh Bara Ndiaye wax rek ñun suñuy affaire la ñuy delluwaat. toog nag di surveiller bu baaxee ñu ne baax na mais bu bonee dinañ toog ne ah erreur am na tant mi ngi baax man Bassirou Diomaye Faye mi ngi gouverneur dëkk bi. Hmm. tant que mi ngi baax moom ak son premier ministre dañ leen di féliciter. dañu leen di enga encadré parce que projet bi suñu projet la ñun dañ ci def sacrifice dañ si sonn ay sénégalais dee ci. mais bis bu ñu jàddee yoon rek jot suñu jikko ah. dinañ ne leen ah arrêté leen ñoo leen gunge woon ñoo leen jàppale woon mais nag li ñu gis ni demul kër bis bu jàdd yoon amee a ah, dinañ ne leen da ngeen jàdd yoon c'est-à-dire ñun askan bi la ñu fi nekk lu ñu dégg nag fork ci weewu bay xam nga hmm. mënuma tëb dem gis Bassirou Diomaye Faye mënuma tëb dem gis euh, président Ousmane Sonko mais bu ñu amee ay ay ay messages yu ñuy véhiculer via plateforme yi ñu disposer pour communiquer hmm. fa lañ koy jàllale pour sensibiliser pour informer pour arrêter ba message bi yegg. ci kii kooku jox ko crédit boobu crédit bu doy sëkk ba tax. li déggoo li ma la kooku sax d'ailleurs sax woowu ma sax téléphone. nit la yónni ba sama kër nit la yónni. waaw ah. chauffeur am la yónni ba sama kër mu nekk neel monsieur Sall dama ko soxla man ñi may jox information ñëpp du ñu ma woo dañuy yónni nit ci ay kanaal ma daje ak ñoom ci ay bërëb ñu jox ma ay xibaar parce que. man dama am loyauté ci doomu aadama man ku ma àndal Pa Ousmane bu ma la téyee téye naa la su ma la bàyyee bàyyi naa la man noonu laay fonctionner sama àdduna hmm. man bu ma la téyee téye naa la bu ma la bàyyee bàyyi bàyyi naa la mais lu ñu toog waxtaanee ko ci biir nekk man ak yow bu ñu ma doon rey sax du ma ko wax man li tax ma exilé Mali est xam nga ban raison moo tax ma exilé Mali. wax nga ko fi. déedéet. ah raison bi yokk tax ma exile Mali. maanaam dama xam ne man nguuru Macky Sall ñu jàpp ma yóbbu ma kaso man de reyu ma nit defuma dara loolu dina naxari prisonniers yi loolu maanaam dina leen metti man dayo bi ma am ci ñoom ak ndimbal li ma leen di ñu jàpp ma man tëj ma loolu dina leen naxari lool lool lool benn hmm. ma amoon ay relation yu rafet ak ay agent pénitentiaire ay inspecteur ay garde pénitentiaire ma amoon ak ñoom relation ñooñu it sama dugg kaso dina leen metti lool ñetteel bi mooy man sous l'ombre d'aucun doute sous l'ombre d'aucun doute joxe woon nañu ay instructions yoo xam ne yeggoon nañ ci foo xam ne dañ ne boo leen ko jàppee na ngeen ko torturer ba mu wax information bi kan moo ko jox parce que boobu maa ngi toog ci média bi di joxe ay information te information yi may joxe kenn du ko man joxe gu lu nit di weddi. Mm. loo xam ne nit danaan kii day fen li mu wax lu dëkk affaire bi commencé leen jaaxal. Mm. ñu ne kii nan la xamee ne ñun yebal nañ kër Ousmane Sonko bi ñu barricadé këram. ay ay cadre ci parti bi ak benn sëriñ pour ñu négocier ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko dàq leen baatu dàq bi ma wax moo déranger Macky Sall doomam. Hmm. chaque instant mu woote ndax jàpp ngeen ko ndax jàpp dem nañ ci ba yegg ci ne torturer leen xanaa moom man policiers bi ñu may jàpp. policiers yi teg la nañu une semaine di ñëw di ma jàpp te askan bi xamuñu ne man police mi ngi may jàpp man maa man maa def vidéo Mali xam wax nit ñi sama situation mais Sénégal kenn xamul woon ne ñu ngi may wër ñu ngi may jàpp kon ñoom. buñ ma jàppoon ci diggante boobu yéen presse bi doo leen ko xam parce que amatoo leen woon sama nouvelle dañ may jàpp ray ma torturer ma te askan bi duñ ko yëg dañ naan Ibrahima Sall disparaître na rek man bi ma amee information yëpp si laa gàddaaye dem Mali pour sauver sama bakkan def ni yonante bi digle woon ne dem leen Éthiopie ngeen gàddaay foofu gàddaay l'islam moo ko njëkk a digle raison yooyu moo taxoon ma daw mais man kaso boo ma jàppoon dugal ma kaso man maay gën a neex.